ba tey ci seen scandale du jour euh, démb la euh, vingt cinq juillet mu nekkoon jeudi procès ki nga xamante ne moom mooy Mimi Touré di Aminata Touré ak Mansour Faye mirum diffamation ñu déglu ci vidéo bi ñëwaat. confrère bi léegi ñëwaat. waaw xam nga instant bii nii euh, comme li nga wax Mansour Faye nekku fi ay avocat ñoo fi nekk réplique yi ñoom ñoo koy def. Euh, amna na ci sax ku melni maître Bathily dem na bay xamal Mimi Touré na ko yow euh, jigen ju toll na yow surtout ak responsabilité yi nga yor yëpp waron nga seexlu di accuser euh, baayu jàmbur te amoo benn ben, ben preuve bo xamanteni yang koy tek sur table ñom nak avocat yi li ñuy kon li ñuy sàkku fi toll ni moy ñu daldi di condamné Mimi Touré lu mu néew euh mu

comme euh, li nga xamante ni mooy amende donc fofu lañ tollagum ñom nak avocat yi dafa melni dañuy fim mu toll nii ki nga xamante ne mom moy euh Mimi Touré euh, ci taxawayam ak euh, li nga xamante ni mooy accusation yi nga xamante ni defon nako wax nañ ñom amuñu à donner des preuves parce que ñom ñom ñoo porter plainte comme que ñoom ñoo porté plainte du ñom ñooy indi ay lay donc mom mi nga xamante ne bii moom moo moom accusé woon na indi lay yi nga xamante ne

ki nga xamante ne moom mooy euh, rakk ci Marème Faye Sall di Mansour Faye maire de Saint-Louis mom nag avocat mi li ñu sàkk moom ñu daan Mimi Touré lu mu ndaw ndaw six mois wala ah ñu teg ko amende boo xamante euh, dana ci dina toll ci un milliard euh, franc CFA ndax nag yàq der la te lépp looy wax ci baayu jàmbur mbaa ci jëkkëru jàmbur war nga xam li ngay wax kat ci firnde wala kat buñ ma woowee fu leer laa ko teg donc mu na def man li ma wax rek ñaari ñu jote moom bu ñu xasee ba dem ci yoon yoon na def liggéeyam képp koo xamante ne moo nekk ci dëgg ñu jox la dëgg ku nekk ci fen ñu jox la fen donc nga assumer say say say say say say say say acte comme Ahmed Suzanne Camara euh, d'après euh, les informations nee na euh, affirme ses propos te ñu ngi koy toppee leneen loo xamante ne moom mooy mbirum diffusion de fausses nouvelles loolu nag dinañ ko xuus après indil leen ko peut suba ci ça se discute mais mu ngi noonu nekk na loo xamante ne diggante Mimi Touré la ak ki nga xamante ne moom mooy euh, Mansour fay yéen la rek yéen a a nekkoon seen biir yéen a ànd 12 ans Mimi Touré soppeeku taxaw fee mel ni la may bañ a tudd di tuumal ku ko neex tey Macky Sall suba kee gannaaw suba kee yoon na def liggéeyam yoon na def liggéeyam réew mi mag yi nga xam ne ñu ngi fi amuñu benn fulla amuñu benn fayda respecté ñu seen bopp bugguñu ku leen nawloo ku jug waxtam nit ki so te muso ko gintu guddi aha rew mi jaxasoo rew mi jaxasoo di mën nii la dem man man kan la ki wara meuna sosal bu journaux yi nag naan di naa ay duma ñaan jamm nak de man mii diffamation man sumay sosal damay sosal ko xamne duma porter plainte porte mhm, dama genre wale c'est qui dama len di sosal du ñu ma porte plainte ñom omoro man nako sosal ki num tuddati Sidi Diop mën naa ko sosal ah yéen yëpp mën naa leen sosal mais garaawul garaawul aw fit man fit man boo leen gisee bi fit di jaay doo leen ma ko may man fit rek ay man su ma amoon fit ci réew mi man su fit ci réew mi baax